ñoo ngi leen di nuyu yéen ñëpp te di leen siyaar te di leen baalu xàq te di leen baal xaq di ñaan yàlla mu boole nu aju fa jundimal yàlla di jël nuyoo boobu wala nuyoo yooyu ak siyaar yi di ko teg ci loxal leen ci jëwrin yi di ñaan ñu istiqraaxal wala yàlla istiqraaxal ko ci mboolem ñi nekk ci arqam yi nga xam ni aju na ci ak mboolem jullit yëpp jëmm yooyu nag buñ ci tuddee Serigne Mbacke Diop ak Serigne Fallou Silla danañ mën a istixraaxal mbooleem yeneen jëwrin yi nga xam ni ñoom la suñ borom tabaraka taala jaarale liggéey bi ci seen loxo ak mbooleem mbokk yëpp mbokk yi ngi dikkaat ak yéen ci silsila bi nga xam ni baaxoo nañ ko ànd ak yéen moy cheikh islam ibnu taymiya alxarraani radiallahu anhu ak tasawuf suñu jataay bi jàlloon ñu dikk ba yegsi ci cheikh islam ibnu taymiya téeréem bi nga xam ni ñi nga xam ni ñoom la ñu tudde alwahabiyuuna wala alwahabiyina ak ñi ni tudde ak tay mi yii na ñooñu téere boobu nga xam ni mooy majmuu fata majmuu fatawal kubra lu ëpp ci seeni delluwaay la commencé min salafihim ila xalafihim ci mboolem seen tasaanif yi ak seen taalif yi yëpp da nga ciy fekk ñu koy arqaamal di ci dellu ci ay safaxaat yu feccantikoo ci majmuu fataawal kubra ah, jataay bi passé ñu doon indi ay leeral lenn ci mbokk yi pour que jëmmi téere boobu ndax mën naa nekk wala warees na koo mën a def li ñu tuddee al marjaul ba tax mbooleem ci tasnifa tasnifaat yeeg taalif yeeg yu bari da ngay dem di fekk ñu cay delluwaat wax ni la ca waroon mooy téere bi lu jëkk ñu koy def comme mu nekk marjiul asaas yi la ca waroon mooy ñu dem gëstu ji ko bu laajee ak tanqiya ñu def ko bu laajee taqiix ñu def ko bu laajee ñu def ko waaye ànd lool loolu lépp maal asafi sadid loola amu ca ba pare ay nit def nañ ko ci seeni majhudaat dajale ko ba lu ëpp ci ndonga yi wala lu ëpp ci ñu bari ci ñu yëngu ci xam-xam def ko marjixul asaas yi di ca dajji ak di ca saxal tem waroon a toll ci loo xam ni lu ñu waroon a saytu la njëkk muy yegsi ci marché bi naka noonu Cheikh Tidiane Gaye rahmatullahi alayhi rotal na ci téeréem ni muy téeréem laa yafqahuuna wax ni ñeen fukki mu jàllat la man nag bi yàlla dogal ma am ko ci mi ngi toll ci trente six mu jàllat mbokk yi nga xam ni sukkandiku nañ ci téere boobu ngir taalifal jullit ñi wala ngir seddale jullit ñi ci ay xaaj wax ni kii mooy muslimu sunni kii mooy bidaayiyu wala kii mooy salafiyu taqsim ni ci jullit ñi am na ku ñu tudde sunni yi am na ku ñu tudde bidaayiyu am na ku ñu tudde salafiyu te taqsimaat yooyu yëpp day li ñu miinoon ci jamono yonent bi sallallahu alayhi wa sallam taqsimaat yooyu yëpp amul woon li amoon ci jamono yonent bi sallallahu alayhi rek mooy ñëpp sammaakumul muslimina min xablu mbokk yi bu ñu demee ci téere boobu des na fekk ci tasnif yi nga xam ni defal nañ ko ci jullit ñi mu tukkee ci ñoo xam ni delloo nañ ci aara yooyu bind ca wala def ca ay talxiis yoo xam ni boo ko toppee day delluwaat ca mu daat yooyee yoo xam ni léeg-léeg aji liiram ko day dana xaw a ree waaye léeg-léeg aji liiram ko dana si sotti ay rongoñam bokk na ca téere yu ndaw ndawaan yooyu nga xam ni dañ ko ce génnee di ko maye gratuite am naa ci boo xam ni mi ngi ko tuddee haasa huwa al islam nga xam ni yu ñu talxiise la yu ndaw di ko maye mal asafi sadid ñañ koy may fekk jëm joo xam ni ferut ijji wala ci liir di comprendre la toll wala jàng na waaye àlluwaam yëggut ci mën a ràññee yegg na ci xam lum jàng xam ko lum liir xam ko waaye mënta ràññee ak ki nga xamante ni si day dem ci nit rek mu leeralal ko ko ñu koy traduire ci français di ko traduire ci ay langues yu wuute di ko seddale doomi jullit yi ci àddina pour wane ni leen aqida yi ngeen am baaxul aqida bii ñu leen di walla wala ñu leen di jàngal moo baax loolu anduy pëccëxoo gu rëy rëy rëy indi yàq gu rëy rëy rëy indi feebar bu rëy rëy rëy ndax sabab nag noonoon ci jullit ñi sabab ak takfirante sabab ak tasfiixante te mbooleem ña koy def ñépp ñan koy def ay jullit lañ ña leen koy defit ay jullit lañ am na ci boo xam ne mi ngi tuddee li ñu tuddee al aqidatu saxiixa kon lañ ca tënk wala lañ ca bëgg a jàngale mooy lu dul lii du aqida bu wér ñu koy séddale gratuite di ko maye nga xam ni kenn sax waru koo jaay loolu daal di indi pëccëxoo bu rëy ndax mboolem réew yi jullit yëpp daj na fa ñu di ko fa maye ak di ko joxe tax ba ixtilaat bu bare baree bari daal di am njaxas gu bari daal di am ka ràññee woon dootu ràññee day gën a lëndëm day gën a gëlëm ka tolloon ci liir di xam daa di gëm dootu liirati leneen ba man koo gëm ka xamul dara ñu daal di ko orienté ba mu des kon lenn ca ñi yërmande suñu borom tabaraka taala ndimbal yàlla jàpp leen ba tax tëddiwuñ ca fiir yooye loolu nag ku ni gis na li mu yàq tey ci àddina ndax tey fu mel ni Sénégal li fi amoon mooy budee dee fukki li fukki jullit fi nekk juróom-ñeent ya nga xaajaat beneen ba ba mi fukki xaaj juróom-ñeentaat ya ñëpp ñoo bokkoon benn aqida buñ nekk muy aqida asaariya ñoo bokkoon benn masab buñ nekk muy masab Malik ñoo bokkoon it benn manhaj buñ nekk ci wàllu tarbiya mooy lu ñu tudde al ihsaan ñoo bokkoon bem suubuwaay benn yoon buñ ci jaaroon nga xam ni ñoo bokkoon méthode yi ni yare doonte amoon na ci biir furon yi ay wuute waaye mën manhaj yiñ ko daan defee wala lu ëpp wuute wuñ ca woon ci ay madaaris ci wàllu yar kon ñoo bokkoon benn madrasa madrasa buñ nekkoon di yar ci wàllu aqida ci wàllu mbooleem jaaruwaay yi nit ki mën a jaar ngir am ngërëmal suñ borom tabaraka taala loolu moo tax borom ibnu asir daal wax ni wa baadu falaawnu min allahi almajid fi nasmi abyatin li ummiyin tufiid fi aqdi ashaarin wa fiqi maliki wa fi tariqatil junaydi saliki mboolee mag ñi ci Sénégal yépp ci lii lañ nekkoon waaye ñooñu daal di ñëw daal di indi ay subuhaat ci boppi ñu bari ci jàngkat yi ba tax ixtilaat daal am ci masaayil yu bari ñu daal di toxal masabu anabila masabu imam ahmad ibn hanbal daal ko toxal andi ñee toxal shafii ñee toxal abu hanifa mu fekk si malik te jumhur bi ñëpp nekkoon ay maliki loolu daal andi wuute bu bare bare bare bare bare ci pinc mi waaye bu yemoon ca wuute ga rek ci ay furoo du doon kaarisa waaye la tax mu doon kaarisa mooy ba ñu demee ba wuutwe ci wàllu aqida wala ci ay masala yoo xam ni dafay ajuwaat ci wàllu pas-pas loola moo waral takfir ba loola moo waral tafsix ba te mi ngi delluwaat ci xarakaat yooyu nga xam ni dugg nañ ci réew mi te askanoo ci ñaari jëmm yooyu ma wax mooy cheikh islam ibnu taymiya ci wàllu fi afkaar wala muhammad ibn abdul wahab wala ñu askanale ko seen bopp naka noonu te téere boobu nga xam ni moom lañ tuddee majmuu fataawal su ñu demee muy téere bu bari li ñuy tuddee tanaaqut bari lool ci biir téere bi naka noonu taarut bari lool ci biir téere bi téere boo xam ne bu ficcantikoo ci ay xalaat la waaye ay wuute lool ci ay gis-gis na ko noonu xatta ak wuute ci ay asaalib ak i yu wuute yu faccanti ko loolu lépp ci téere bi nag li koy jamtal mooy façon gi ñu dajalee téere bi façon gi ñu dajalee téere bi ak jëmm ji nga xam ni def na ko wala askanele nan ko koko ak ginnaaw bi diir bu yàgg bi am dajale gi doog a am loolu moo indi subuhaat yi loolu moo indi mboolem xeeti lënt ak tanaaxut yi nga xam ne am na ci biir téere bi nga xam ne téere bu ñu delluwaatee ci mbooleem fatawaayu yépp dañu gis ni la ca njëkk am ci côté xam-xam mooy ñàkk mën hajiya ci wàllu baxs bokk na ca ñàkk gum ñàkk li ñuy tuddee tanqiid wala tadwin wala tartib yooyu yëpp dangay gis ni ci téere bi ñàkk gum ko ñàkk lool lool lool ci anam googu lañu ñu dajalee téere boobu wala mañ moo fataawal kubra boobu noonu ci fataawaa mujjalladaatam yooyu nga xam ne bu dee ñun ci suñu gëstu li ñu jàpp mooy majmu fatawa bu dee fukki wax la juróom-ñeenti waxee yépp dama jàpp ni lu ñu defeel la cheikh islam ibnu taymiya rahmatullahi alayhi waaye waxu ko man loolu laa gëm ba kero may gis lu wuuteeg loolu te dinaa dikk lenn ci junj li mu tax ma gëm loolu amaa jëmmi ji ko xam ni moom moo ko dajale mooy cheikh abdurahman ibnu muhammad ibnu qasim alxaasimi alxaqtaani al anbali an najdiyu yàll na yàlla yokk leeram te mu gane àddina ci mille cent deux ba 1972 doon na ko tuddee abu abdallah kenn la ci boroom xam-xam yi ci ngirum imam ahmad ibn hanbal mi ngi ganee àddina ci dëkk bu ñu wax biira ci riyad bind na ay téere gëstukat la woon rawaate na ci wàllu taarix ak wàllu juxraaf bokk na ci ay téereem سيف المصلول على عبيد الرسول اكتيرين بموت دي احكام الاحكام تن اختصار كوشي اصول الاحكام اك داجالي كمو داجالي مجموع فتاوى الكبرى اكتيرين بني وخ الدرار السنية في أجوبة النجدية كون جمو جوجو يالنا يالا يرمكو yéeneem jur rafet ci dajale xam-xam yàlla na ko yàlla fay waaye moom kese moo dajale Majmuu Fataawal Kubra xanaa ak doomam ji ko ci doon jàppale ci jamono boobu mu ko dajalee jamono bu jafe boobu ci jamonoy wéré bi ci waxi doomam ci tuxalu tuxu déplacé wu dem fu mel ni Saam dem fu mel ni Iraq dem fu mel ni Misra ak lenn ci réewu européen yi ngir dajale waxi cheikh islam ibnu taymiya ci téeréem boobu mu tuddee majmuu fataawal kubra nga xam ne moom moo ko dajale tudde ko noonu ci jamono bu jafe boobu noonu ci diiru fanweeri at mu dajale ci loolu génn àddina ci xew-xew boo xam ne mi ngi jaare ci accident oto ci biir loolu ci dundam lakk nañ ay téeréem ak ay xew-xew yu ca xew waaye loolu itteelunu ni mu doon tuxale xam-xam boobu nga xam ni ginnaaw bi lu toll ci six cent googu dajalewut lu dut ni ginnaaw bi fi Cheikh Islam Ibn Taymiya jógee ba mu am sittumia wa isnata ashara wa isnatay asara sana di après lañ dooga la doog a def majhudaat yooyu noonu ngir dajale waxi seex islaam ibnu taymiya jooju moo tax doomam wax ni seex islaam ibnu taymiya waajuram mi ngi dajale di muhammad wax ni waajuram mi ngi dajale loolu waxtu wi nga xam ni li ñuy tuddee xarakatul jamai wa taalif ci najd ci atum mille trois cent quarante na lool wàllu dajale ay téere ak wàllu dajale ay taalif dajale ko wax na ni waajuram ci jamono boobu la commencé dajale googu noonu wër di dajale mbokk yi loolu nan lañ ko doon dajale mooy li ñuy wax su al maydaan yi lañ ko doon def mooy laaj dem ci ay nit di leen laaj te buñ demee ci mañ moo fataawa mboolem xeeti laaj yooyu ñuy laaj amul yenn maxtuutaat yoo xam ni ci lañ delloo laaj yooyu wax ni boroom xam-xam sàngam moo wax ni cheikh islam ibnu taymiya radiallahu anhu moo defoon fatwa bi fii ci jataay sàngam di ko fekke wala boroom xam-xam sàngam lañ ko jële kon mbokk yi loolu lépp amu ci li ci am rek mooy ay laaj la ñu di ko tontu waaye amul yenn source yuy wéral ni cheikh islam ibnu taymiya moo ko wax du ay maxtuutaat te du ay maraji yu ñu sukkandiku yu mën a wax ni masala sàngam cheikh islam ibnu taymiya moo ko fatwa ci béréb sàngam diw ak diw ko fekkee ñu topp diw ak diw ak ba xam ndax loolu wér na ndax moo ko wax wala ndax woo ko loolu lépp amul ci majmuu fatawa te Cheikh Ibrahim Ibn Taymiya moomu mi ngi gane àddina ci six cent soixante et génn àddina ci sept cent vingt sept soo gisee diir bi nga xam ni dajale nañ fatawa bi fatawa bi majmuu fatawa al kubra ak bi mu génnee àddina distance bu yàgga yàgga yàgga yàgg la ba yegg ca lool lool lool ak jamono yooyu li ñu tuddee ay makaatib ak yu yuñ binde ak jumtuwaay ya mën a denc mën a garde ni mu tumuranke woon ci jamono kon ci yan source lañ mën a delluwaat ngir mën a wax ni liñ fi dajale cheikh islam ibnu taymiya radiallahu anhu moo ko wax naka noonu bu delloo ci wàllu tartib gi nga xam ni def na ko ci bunt yi def jiital taw kitaabu tawxidul uluhiya def tawxidu rububiya def mujmalu ictiqaadu salaf ak mufassalul ictiqaad ak asma wa sifaat ak kitaabul iman kitaabul qadr kitaabul mantiq ba ci kitaabu suluk ilmu ak kitaabu tasawuf ñu fekk ci même tartib googu dañuy fekk nii dafa wuute lool sax ak manhajul bahs wala ci wàllu tab tabwib niñ ko teggalee dañuy wax ni daa wuute sax ak manhaj bi ñu xam ci wàllu xam-xam ci ni nu war a toggalee ay bunt walla war koo toggale ay fusuur waaye foofu liñ ciy leer rek mooy fu mel ni bu ñu jëlee ilmu suluk ak tasawuf fi awali wahlatin lu ñu gis ci kutub ulamaa yi ahlu sunna wal mën nañoo wax ni cheikh islam ibnu taymiya mooy ki njëkk a tàqalee diggante li ñuy tudde ak suluk ak li ñuy tudde ak tasawuf ndax suluk du du ci tasawuf la bokk waaye la tax mu taqsim ko noonu wala la tax ñu taqsimal ko ko noonu mooy pour séparer ni kon am na suluk bu waa tasawuf di wax wérut moom bi muy wax moom moo wér kon lu garib moo am ci tabwib googu mu def noonu ndax ñàkk a respecté norme yi nga xam ni noonu lañ war a tënke ay bunt wala ay fusul ci majmuu fataawal kubra naka noonu ñàkk a tàqale mbir yi ba nga xam ni da fekk ci téere bi lenn loo xam ni ca beneen téere bala waroon a askanoo ak takkaraar gu bari ak tadaaxul gu bari goo xam ni am na ci masaayil yi kon loolu lenn la ci yoo xam ne des na ci mën a sukkandiku ni est-ce que cheikh islam ibnu taymiya radiallahu anhu mi nga xam ni moom la muhammad qasim moomu di wax ni moom mooy سيد الحفاظ موي بحر العلوم موي حجة الله على عباده موي الجامع بين العلوم النقلية والعقلية بأنواعها اسك شيخ الإسلام إيمو تيمية مومو سو جانغ تي من ألف إلى الياء دعاي واخني كون لين وحش شيخ الإسلام إيمو تيمية رضي الله عنه سودي دقلة li ci téré bi majmu' fatawa min al alif ila al-ya lépp dañ ko ko askanele dara du ci dëgg ndax tanaqur gu ci am taar gu ci am ku nekk saydul xufaas nekk muftil umma nek sheikhul islam nek faridul asri nek awhadud dahri koku jombaté nak ñu man koo askaneele kon loo xam ne ay tanaaqudaat la fees dell ak i takraar ak i tadaaxul ak i taarut kon jombaate nag ñu man koo askanele loolu kon muy nekk lu wér lu dut ni dañoo am source yu leer yuy wane ni moom moo ko wax naka noonu bu ñu demee ci ku mel ni Cheikh Abdallah Harawi ci téeréem bi mu tuddee dalalaat ibnu taymiya ñun nag moom duñ wax dalaalaat ibnu taymiya waaye am na ay bind yuñ ci bind dañ ko tudde rekk taraaju cheikh islam wala taraajuaat cheikh islam ibnu taymiya <coughs> euh, jëmm ju mel noonu boo demee ci téere boobu dana ci gis wane lu baree baree baree bari loo xam ne dana delluwaat ci mañ moo fataal kubra bi ci ay tanaaxut ak i yu bari yoo xam ne am na ci loolu dana wuuteeg mansib bi nga xam ni teg nañ ko fa ci wàllu xam-xam dana wuuteeg weddi boppam yu bari yi rot ci biir téere bi ak subahaat yu bari yi rot ci biir téere bi loolu dana wuuteeg lool cheikh islam ibnu taymiya ci wàccuwaayam ci wàllu xam-xam kon suñ ko askanele loolu dañuy jàpp ni lii dañ ko ko askanele waaye wérut euh, loolu lenn li ci ab tënk rekk loo xam ne dañ ko doon sof ca suñu tomb bi ñu sulu ñëwoon keroog wala ci jeexitalu tomb ba ngir mën a tënk tomb booba ngir dugg nag ci li nga xam ni mooy suñu mawdu wala mooy suñu dars tey incha allah ci yeneen jataay yi ñu fas ka ko mottali ndem neex na yàlla loolu mooy li wax gis-gisu li ñu tuddee bidaa nan la ko cheikh islam ibnu taymiya dégge ci wàllu ijtihaadam ak jumhur bi ci ulama al ñoom nan lañ ko ak ndax liñ koy askanale ndax wér na wala wérut cheikh islam ibnu taymiya dafa wax ni wa kullu bidaatin laysat waajiba wala mustahabba fa hiya bidaatun sayyi'a وهي ضلالة باتفاق المسلمين وهي ضلالة باتفاق المسلمين من ومن قال في بعض البدع أنها بدعة حسنة فإنما ذلك إذا قام الدليل شرعي أنها مستحبة فأما ليس بمستحب ولا واجب فلا يقول أحد من المسلمين إنها من الحسنات التي يتخرب بها إلى الله لول من كوختي مجموع فتاوى كي 664 62 كون لي لم بغا وفو موي بدعة واجبة ولا مستحبة lañ koy tuddé mom da fay jàpp ni lola bid'a sayyala dalala la bi ittifaaqi muslimina daa di wax ci ba'd al bid'ah lenn ci bid'ah yi jàpp ni jàpp ni bid'a hasana la kon bi sarti dalil shar'i annaha min al hasanat kon sarti ji moy day am dalil shar'i buy wane ni hasanat la bo xam dañ cee mëna def taxarrub ila allah subhanahu wa taala kon da na fekk ci biir wax joju jooju islaami taymi di saxal li ñu tuddee bidaa waajiba ak bid ak mustahabba lolu wa yuqarrir bi ittifaqil muslimin lako ko taqrir waaye mu waxaat beneen jumla boo xam ni mooy lënt ma dafa xam ni wa ma xaalafa nusuusu fa huwa bidaatun bi ittifaaqil muslimin loolu ànd nañ ci moom nee na bi ittifaaqil muslimin dama xaalafa nusuus mooy loo xam ni daa wuuteeg texte wala mu am texte bu koy dàq mu ni wa ma laa yaalamu annahu xaalafaha faqat laa yusamma bidaa loo xam ni nag xamuñu ndax wuute naag texte wala wuutewut ak texte kon kenn du ko tudde bidaa loolu ci mu jàllat ñaar fukkeel ci safha cent soixante treize wax jooju nag wax ju desee leer la ci aji dégg mboolem jumal yi nga xam ni jëfandikoo na ko waaye bu ñu lëkkalee waxam jooju la muy jamtal mooy fa kullu amrin yaxtadi filuhu ala ahdi rasul sallam mawjudan law kaana maslaha walaw walam yafaaluhu yaalamu annahu laysa bi maslaha loolu buñ delluwaati ci fatawa cent sept cent cinq danan fekk ni kon saxal na li ñu tuddee bidaa sax waajiba saxal li ñu tuddee bidaa sax mustahabba kon loolu benn la ci mawqif yoo xam ni cheikh islam ibnu taymiya radiallahu anhu am na ko ci waxin boobu saxal na lu ñu tuddee bidaa waajiba ak sax lu ñu tuddee bidaa mustahabba te bu dee ci jumhur bi ñoom li wér mooy al bidaatu ak al bidaatu sayya ci yu ñu mën a sukkandiku ci taqsim bidaa kon loolu delluwaay la boo xam ne mbokk yi nga xam ni aju nan ci ay afkaaram te saa luñ wax rek ni bidaa la ba jàpp ni lu yonent bi sallallahu alayhi wa rek bidaa la kon seen wax jooju nañu xool keneen kuñ ko askanale waaye du Cheikh Islam Ibnu Taymiya ndax waxin bii mu wax ba yegg ci ni bidaa am na ak bidaa ba kon tegtal la ci ni kon ku d'accord ne bidaa waajib am na daqut ni bidaa xasana am na kon du lu yonent bi sallallahu alayhi wa rek day firi bidaa loola ak ñàkk xam la ak réer la ak gàttu àlluwa ak it tënku ci satxiyaatul kalim rek moo koy waral kon ñu bàyyi xel bu baax ci mbooleem masaayil yi ak niqaat yu bari yi nga xam ne dañ koy delloowaat ci Cheikh Islam Ibnu Taymiya na rawatina majmuu fatawa ñu bàyyi xel ni maj majmuu fatawa benn nit ak doomam <clears throat> ñoo def seeni majhudaat ba daje ko dajale ko source yi nga xamante ni si ci lañ war a sukkandiku pour tuxal masala ci xam-xam wala pour tuxal waxi jàmboor ci wàllu xam-xam wala askalale nit ay wax ci xam-xam mbooleem yoon yan war jaar yépp amul dara luy jamtal ci majmuuca fataawal kubra lu cay jamtal ni respecté nañ ko wala jaar sàmmonte nag moom kon loolu moo tax ma wax ni majmuuca fataawa bi si fa amma dama gëm ni bu dee fukki wax la juróom-ñeent ya yëpp seex lan tamit waxu ca benn dañ ko ko duural dañ ko ko askanale ndax ñi nga xam si ñoo askanoog moom ci wàllu gis-gis yaatal nañ ci ay téereem yaatal nañ ci ay bindam yaatal nañ ci ay waxam ak def taasub ci wàllu tawaif ak ci wàllu jumudul fikri ci wàllu mazhab wala ci wàllu aqida rawatina seen aqida boobee ñu tuddee aqidatu salafiya ba tax na ñu joyal lu baree bari askanale ko nga xam ni dañuy wax ni kon mooy benn borom xam-xam ci àddina bi nga xam ni takfiir na umma bi yépp mooy benn borom xam-xam bi nga xam ni ci àddina bi yépp moo ëpp lu wuuteeg ummatu muhammad sallallahu alayhi te loolu wuute naag lool li ñu jamtal ci wér ci wàllu xam-xam gu ko yàlla defaloon mu nekkoon koo xam ni gëstukat la jàmtaloon boppam it ci góorgóorlu ci tawféexu suñ borom tabaraka wa taala jàpp ni ki war bokk na ci ñi war a leeral diine ji ci wàllu bind ak jàngale bind ay téere yu bari naka noonu jàmmarloo xawaari ji ak ñi ñuy tuddee jahmiya ak ñi ñuy tuddee mu'tazila ak ñeneen ak ñeneen yu bari jàmmarloog ñoom ci bind di leen raddu ci wàllu aqida waaye nag ay nit askanoo noon ci moom nag ci wàllu taasub ci wàllu mazhab wala ci wàllu fikra ba tax ñu askanale ko lu bari loo xam ni sartaana ma bay na sarqi wal dara amu ci te dara wéru ci ndax amut ay source kon bu ñu delluwaatee ci jeex yi nga xam ni mënees na cee dellu ngir mën a ballu lu lenn ci liñ wax dañu dem ci ku mel ni Saïd Ramadan al Buuti ci téeréem bi mu tuddee salafiyatu wala nga dem ci ku ñu wax Muhammad Hamid Idris tem tudde téeréem bi ilaamu nabil bi anna tarka laysa bi dalil naka noonu wala ku ñu wax Isa ibnu Muhammad ibnu Abdillahi al Umayri tem tudde téeréem bi al bidaatu al xasana aslun min usuli tasrix ak ay téere yu baree bari yoo xam ne bu ñu ca delloo liir ko dees na fekk luy jamtal lu bari ci li nga xam ne doon naa ko indi rawatina lu jëm ci wàllu tanaaxut rawatina ci mafhum bi nga xam ni Cheikh Islam Ibn Taymiya am na ko ci wàllu bidaa ak li ci aju